di ëllëgu suñuy doom ak suñuy sët ñu bañ a juddu si ak noteel. Baye Fekki. Hmm. Baye Fekki. ñaata yoon laa la woo. ñaari yoon. ñeenti baat da laa muy yan. soo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot ndaxte yow dëkk bi yaa fi mag te xam nga lépp. lan mooy laytaayu gàngu naa ak lan mooy njariñam. Hmm? laatir kooku nag moom ab sëb la la ko ba nga ca biir magum dëkk gone googu fexeel ba gis ko fexe ba dereeti téegalam way ci gënnam lu ko mooy rek sa nguur gi suuf la jëm euh, bàyyi jiwal mi nga xam ne fan yëpp dañ ko jàppoon damaa dégg ñu ne magum dëkk moo ko jàppoon magum magum dëkk foo déggee lool ah war naa ci wéyu bay de moom su ma doon yow nag nga moytu bu baax a baax a baax ndax yow yaa gën a xam ne kenn wax loowu la. Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.